mooy wane ne jigéen ñi benn lañu jigéen ñi benn lañu dañu àndandoo nekk benn bon ñu tànnoon ni dañ koy def le huit mars yàlla dogalu ko parce que yàlla mooy dogal ñu ni kon suñu sœurs yi ak suñu mag yi nga xam ne bi nu waxtaanee ku mel ni Adja Garmi Fall ku mel ni Adja Fat Ndiaye Tamsir ku mel ni Adja Ami Kolle bi ñu waxtaanee ñu ni kon nañ ko def le 19 balay ñuy um koor

defar suñu parti dundal suñu parti waxe wane ne suñu parti deewul tey la gën a dund tey lañ gën a dund tey lañ ci gën a jàpp tey la ñu gën a taxaw muy ñun di anciens yi di jeunes yi mais benn lañu amuñu xaajatloo de amuñu xaajatloo benn yoon cest à doomu adama yi am na ñu sànni xeer la ministre Diatara temps yëpp ah. waaw a biir kër da nga fay ne léeg say doom respect ne papa daal nag lii waru ko woon def ah, doo ko dégg waaye loolu moom mënut a ñàkk soxna si léeg-léeg mu naa ne waaw waaw sëñ bi nag moom doole lay jaay xanaa loolu donc ci dundu doomu adama la bokk mais ça ne veut pas dire que juboo amul ça ne veut pas dire que déggoo amul ça ne veut pas dire amul ànd bi tey la gën a dëgër tey la gën a taxaw. xam nga comme euh, yàlla dafa dogal nag li ma wax keroog si ITV ñaari kilifa dañu bokk toog waxtaan ba ñuy waxtaan ñun fekkewuñu ko man fekkewu ma sama sœur yi nga xam ne ñoom laa àndal fekkewuñu ko kon man mënu ma taxaw tey jii confirmer wala mu affirmer quoi que ce soit mais li wér te wóor mooy ñoom ñaar lu ñu décidé ñoo ngi ci seen gannaaw d'accord nañ ci. ñun jigéeni réew mi ban taxawaay la ñu mën ngir suñu parti gëna a ngir suñu liggéey gëna rafet ñu gën ñoo seen ñu gëna mobiliser nit ñi rawati na ndaw ñi parce que xam nga mag ñi xam nañu suñu leader te ginnaaw ñun suñu leader modèle la c'est un model de politique dans le monde un model de politique en Afrique un model de politique au Sénégal nguur gi ma joggé lég rek bi ma rombé am nañu ko doon wax légui naan ma ah yeen de xana yeen da ngay fallu man leen bu ci yalla andé ko tax ñu diko wax parce que dañoo gis ay qualité leader leader bu bëgg jàmm bëgg nit ñi bëgg li leen di jëmale kanam gëm yàlla te te te di ko jëfee yéen a ñëpp jàmm xaw naa jafe de ndax da ngay dégg ñu naan politiciens yi gëmuñu yàlla man leen ñu ne ñu ci ku gëm yàlla de boo jiitee Sénégal suñu borom mën naa wallu Sénégal yi ba lépp oyof. ñëpp la ñu wax unité si kaw ànd nekk benn kër yu mel amee dara. keroog président Idrissa au niveau du secrétariat wax na ni jiite na mairie jiite conseil départemental waa Thiès Désert du mu ne dana jóge ci collectivité locale yi dem feneen mais siis bi mu waroon toog il faut mu taxi mu jàppoon notre frère le ministre des sports Yankhoba Diattara. li mu bëri ay responsable ñu nekk biir réew mi ak ñu nekk biir affaire jàpp ni bu toogee politiquement day nekk seen kilifa politique ñu xeex siis bi daanu comme ni ko la doxee mais nee na ñooñu ba ñuy xeex xamuñu woon ne bu ñu perte la daan Idrissa moo perte loolu la ñu doon moo perte. di ñaan ñëpp ñu delloo seen xel ndax yàlla moo yore ay cër moo yore bakkan mais nit ñi nañu ànd ànd unité ci ànd bopp. je que bu ñu àndee nekk benn yàlla ko ñu defal ndam incha allah nee moom loolu moo tax ànd bi mu ànd ak président Macky Sall bu nekk ànd wële ànd ngor ba keroog yàlla di def yàlla yàlla def di gën ci allahumma salli ala sayyidina